jaaxale ca wax ja nga xam ne daan na koy wax eh, ci li nga xam ne jamono ji nag ñu ngi koy nemmeeku ci réew mi di Sénégal eh, mu di rek jàpp yi nga xam ne ñu ngi koy jàpp yenn ci ñi nga xam ne ñoo féete ci opposition bi ak yenn si ñi nga xam ne rek ñoo di ay leader moom nag Pape Ndiaye daan na yëkkati ay kàddu di wax ne rek daan nay xam ay leader yoo xam ne rek ñu siiw lañ ci réew mi di Sénégal dal leen tëj kaso ñuy jooy jooy yu metti ay tapet yu ngandalan loolu nag ka nga xam ne rek moo di Pape Ndiaye moo ko daal di eh, xamle di wax ni rek ndaw yi nga xam ne rek ñoo ngi jël gaal gi di mbëkk di dee ci géej gi ñu bëri ci ñoom ay eh, politiciens rek ñoo xam ne dañoo fara ci opposition bi rek ñoo leen financé pour rekk ñu jaar ci gaal gi daal di dem fa nga xam ne rek moo di ca bitim réew te buñ deewee ci géej gi ñu jiiñ ko état te état deful dara loolu nag nga xam ne moo di Pape Ndiaye moo ko daal di xamle mu nekk kàddu yoo xam ne nag daal nay bett ñu bëri ci euh, Sénégalais yi itam di wax ni rek ka nga xam ne rek moo di général Moussa Fall mi nga xam ne rek euh, ñi nga xam ne ñoo di Sénégalais yi saa bu nekk rek daan nañuy mer jëm ca kawam moom ma nga xam ne rek moo di euh, Pape njaay daan nay défendre jëm ca nga xam ne rek moo di général Moussa di wax ne rek ka nga xam ne moo di général Moussa Fall nit gënu ko benn yoon nekk na ko xam ne lam nekk daf ko mérito moom ma nga xam ne rek moo di Pape Ndiaye moo daal di xamle eh, mbir mu ni mel di wax ne ki nga xam ne rek moo di général Moussa Fall liggéey ba nga xam ne rek ma ngi koy amal daan na koy jaare ci yoon moom Pape Ndiaye ni ngi tey ñi nag ñi nga xam ne ñoo di Sénégal yi nag di partage la nga xam ne rek moo di wax ja nga xam ne daan na koy wax foofe nga xam ne moo di ca Walfu TV ginnaaw émission ba nga xam ne rek doon na ko amal moom eh, Pape Ndiaye